ñu ngi ci euh, cérémonie de clôture bi 19e édition ziar Sarsara waaye xam ngeen ne Touba ca kanam daaw daf cee am cee liggéey liggéey bu am solo li nga xam ne moom moo jëm ci maanaam euh, liggéey bu nga xam ne moom moo nekk ca dëkk ba ñu am benn commission boo xam ne fii ci Nouakchott commission boobu nag dina nekk ca Touba yabal fii ab délégation ñoom tam ñu ànd ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye jox ñu ndigal tam pour ñu ñëw ànd ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Nouakchott d'ailleurs sax maa ngi nag ak Serigne Murtada mi nga xam ne moom moo jiite commission sociale bi ci Touba ca kanam euh, sëñ bi tey yaa ngi Nouakchott ci tëj euh, cérémonie euh, bi nga xam ne moom mooy am ci ziar Sarsara bi waaye dafa mel ni tamit da fee fekk beneen liggéey boo xam ne mi ngi jëm ci li nga xam ne moom la la dénk ci biir Nouakchott. waaw jërëjëf sëñ bi siyaara bu baax tey ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom jàggal ko fi loolu defal ko bu wér li mu yéene liggéey Cheikh Khadim lépp mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom di ñaan sunu borom def jàmm rawatina ci sunu réew mi di Sénégal def ko ci àdduna bépp di am mbégte bu baax ci fekk bis bii nga xam ne nii ñu ngi fàttaliku jaar gi nga xam ni moom la fi sëriñ bi jaaroon ndax gànnaar dafa am histoire bu mag ak yoonu murit ndax sëriñ bi am na fi ñeenti at rawatina ci barab bi nga xam ne moom lañ jamoon démb muy Sarsara kuréel yu bari nag ñëw fi doon fàttaliku bis boobu Touba ci kanam itam ñëw def yabal délégation bu mag boo xam ne ni soxna Bintu Mbàkke mu sëñ Abibu imaam moo ko jiite ànd ak sëriñ Bayten ak mbokk yu bari yoo xam ne ñoo bàyyi ko Sénégal ñëw fii itam ci Mauritanie fekk fi jëwriñ sëñ Ibrahima Sarr soxna benn Thiaw ñoom soxna Péya soxna Ndey ak soxna Ramba Diouf ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo séq Touba ci kanam ñoom sëñ Basiir Diop ak sëñ Mor Mbeng ñëpp rek ngir jëmmal Euh, jaar-jaar yooyu nga xam ne sëriñ bi jaaroon na ko ndax Touba Ca Kanam moom yitteem du lenn lu dul tur bi rek yóbbaale na lépp muy Touba ci Kanam lépp loo xam ne day tax Touba jëm ci kanam ci saayir ndax baatin moom suñu borom sëriñ bi ñaan na ko te nangoon na ko ba noppi ñu ñëw fii nag tombeek bis bi itam ñu tuddee ko Cheikh Mamadou Fadal ñu ñëwoon àndoon ci délégation bi nga xam ne nii ñoo ñoo bàyyi ko si kër Cheikh Mamadou Fadal di am mbégte bu baax a baax ci njiitalu Serigne Serif mu Cheikh Mamadou Fadal moom itam moo fi teewaloon Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàggaloo téwér ñëw itam fekk fa Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Mouhamadou Mourtada ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañu fekk yëpp xalifa général de Baye Fall Serigne Amdi Fall yabal na fi doomam Serigne Khalifa di am mbégte baax a baax daal di ñaan ñëw gi ñu fi ñëwoon yàlla nañ ci dugg ci bayit woowu Serigne boo xam ne inna lasina ila sarsaara xar xasadu siyaarati faaraxu daarini aw saara ñaanal gam ñaanaloon ña nga xam ne ñoo bàyyi ko woon ci ay barab ñëw siyaare ko ca Sarsara suñu borom tàggal leen bàkkaari àdduna ak alaxira yàlla nañ suñu borom dugal ca ñaanu sëriñ boobay te ñu bokk ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bii liggéeyloo te ñu dëppoo ci ngërëmam ak tawfeexam gannaaw loolu itam ñu ngi bàyyee kàddu yi ñoom sëñ Ibrahima ak sëñ bay ñoom ñu àggale ko di soññ suñu bopp waaye di soññ képp koo xam ne sañ nañ laa yi ci liggéey Touba ci kanam bii nga xam ne ni moom lañ woote te dara tax jug lu lépp loo xam ne bëgg nañ koo jëmmal ci saayir ca Touba ñu mën koo jëmbal te mooy fexe ba weer wu nekk murit bu ko man ak julit bu ko man di tàbbal loxoom ci Touba ca kanam ñaar téeméer par weer eh, at mu jot boo mënee joxe 12000 francs nga di ko joxe boo boo ci mënee boole carte membre nga di ko ci boole bépp jaayante boo xam ne woote nañ ko tamit boo ci manee dugal sa loxo nga dugal ko ci ndax jamono ji ñuy toll ni waa diaspora bi ñu ngi woote ab jaayante boo xam ne ñu ngi ko war a tëj ca Espagne le 10 incha allah ci murit bu ko man mu joxe 100 euros defaat ci li nga xam ne ni moom la Touba yittewoo moo xam am ndox la moo xam ay yoon la moo xam yeneen i kii la kon ñi ngi sant ñëpp di bàyyee kàddu yi sëñ Ibrahima mu àggale incha allah. waaw sëñ Bay euh, donc euh, gis nga kàddu yi nga xam ne moom la sëñ bi yëkkati euh, yow yaa yore li nga xam moom moo diaspora bi dafa mel ne tamit liggéey bi day continuer ba ci mois de juin bi am na lu ngeen koy jeexalee. waaw jërëjëf Cheikh bi li ñuy njëkk rek mooy sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu santaat Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waaye jaajëfal nag bu baax Cheikh Mamadou Mountakha euh, ci taxawaay bu am solo bi mu am ci Touba ca kanam siyaare suñu ambassadeur Serigne Takko Mbacké jamono yi mi ngi United Kingdom muy Angleterre dafa def liggéey bu am solo jaar bu baax sëñ Abib Mbacké sëñe bu Lat waaye nag ci turu soxna Bintu Mbacké mi nga xam ne moo ji jiite soxna Touba ca kanam ci turu président sëñ bu Fatah Gueye tey ñu defoon délégation spéciale ci invitation boo xam ne waa Touba ca kanam Mauritanie ñoo ko invité woon Touba ca kanam waaye jaare ko ci soxna Bintu Mbacké mi nga xam ne moom mooy jiite soxna Touba ci kanam jiite nam commission bi nga xam ne mooy commission féminine loolu nag waroon nañu laaj lan moo ko waral dafa am lu am solo lu am ci Touba ci kanam loo xam ne soxna yi dañ ko def sëñ Mourtala mi mën na ko seede bu dee dañ ne tey Touba ci kanam def na ci année bi ñu génn lu mat 2 milliards 068 millions 095 mille 090 francs soxna yi ak ñi ñu àndal def nañ ci lu mat presque ay 700 et quelques millions kon loolu day wane seen taxawaay ci liggéey Touba kanam sëñ Abib Mbacke mi yitte liggéey bi nee na alquran moo ne ar rijaalu na ala nisaa góor ñi ñoom ñooy yilif jigéen ñi waaye nee na ci Touba ci kanam nag tey nañu teg fële doomi sëñ Abib Mbacke imam nañu teg fële Serigne Soy Mbackeem sëñ Touba moo ko yoroon nañu teg fële yooyu yëpp waaye at yi mu am ak lim lakk ci ay ngërëm takkaat ndiggam nekk ci liggéey Touba ci kanam guddi ak bëccëg suba ak ngoon ba tey bu la waxoon tey at miinu génn mbooleem kuy werse ci Touba ci kanam moo la mën def na lu mat 65 million ànd ko ay jigéen a ci topp ku mel ni maam Fatou Mbaye Sëñ bu ku mel ni soxna Mbaye ak Jum ku mel ni soxna Bintu Sarr kon soxna yooyu nag taxawaay bu am solo boobu lii du sens mérite la moo tax tey ñu invité leen ci bisu Sarsara bi nga xam ne am nañ ci mbégte mu ànd koog ñun nag fu ñu teg suñu tànk rek daf teg na fa tànkam waaye bi ñu ñëwee nag nu jaajëfal bu baax a baax waa Touba ci kanam Mauritanie ndax délégation bi soxna si àndal am na solo soxna Rama Diouf bu Dakar bi njëkkee woote bis Touba ci kanam du 12 juin mu def ci lu am solo ànd ak maam Cheikh Sarr ak seen mbokk taalib mi mbayten jiite suñu commission programme fekk suñu sëriñ nag muy sëriñ Tuubaa Mbàkke sëriñ Abdou Fatah kooku rek doy na tey ñu wax liggéey Touba ci at mii nu génn ñetti junniy famille ak ñaari téeméer ak ñaar fukk la dimbali ci na dama ran korite gi ñëw mu defaat ko tabaski ñu ngi koy waajal jumaa Touba ji la fay dem at weer wu dee dañ koy taxawee kon loolu liggéey la bu rëy bu am solo waaye nag danoo fekk ay jàmbari sëriñ fii muy waa Touba ci kanam Mauritanie Serigne Ibrahima Sarr jiite góor ñi soxna Mbène Thiaw jiite jigéen ni keroog bi nu wàccee léegi muy añ muy reer muy ndekki niñ ko bëgg lañ koy defee daa mel ni nun fi mu nekk nii kër sëñ Mountakha la nekk yar bi mat na yite ji mat na taxawaay bi mat na lépp yem na kon nun du ñu mën loolu sant waa Touba ci kanam dara ni waaye nag ci biir liggéey boobu soxna si tey juróom-ñaar fi kanam tuuti moo ko manqué mu bàyyi ay itteem bàyyi ab liggéeyam bàyyi lépp lu mu doon ñëw fii lan moo ko waral la sëñ Touba waxoon yonent bi sa sam sun man tuhibu wa in sattat bika daaru wahaala min doonuhu sahlun wa awaaru la yem na an naka buxdun min siyaarati innal muhiba li man yahwa sawaara kon moom ñëw na ba siyaar barab bi nga xam Sëriñ Tuubaa moo xoon ne xam ni wasukli li man kulli bii saara la wari dañ doon suq dina am ni sat saara kon ñëw nañ ci barab boobu ziar ziar bu am solo bi ñu wax la ne nag Touba ci kanam tey mi ngi Mauritanie en Afrique am fi ñaar fukki réew ak juróom waaye mu ngi jëm nag Europe am fa 22 pays li commencé 1er mai ba juin noo ngi Espagne ci Alicante mais bu ñu fa bàyyi ko le 10 fan la ñu jëm États-Unis d'Amérique fan ci Amérique New York war fa am jaayante boo xam ne 15 heures lay commencé ba une heure du matin suñu ñoom fan la ñu jëm Canada ñu dem Québec le 8 ba le 9 juillet la ñu def foofu ci Canada ngir lan dañu engage benn projet boo xam ne 2023 bi presque 3 milliards lan soxlaa defee investissement 2023 tali bi war koo joxe nu soñwaat mbokk tali bi yëpp ne Touba ci kanam engagement moo nekkoon laaj lu ñu mën jox ngeen ni ko muy ñaari téeméer def ko fu ñu xam gis ngeen fi ko fi ñu ko dugal kon noo ngi soññi mbokku taalib yëpp biir réew ak bitim réew surtout nag yéen yor presse bi yéen suñuy partenaire ngeen suñuy bokki taalib bi ngeen liggéey bi noo ko bokk lan moon ci war sàmm ak aar ak ñoŋol te noo ngi koy ànd ak kon soxna Bintu Mbàkke waa Touba ci kanam ñu ngi lay santaat di gërëm say doom donte yaay ñooy sa seriñ muy sëñ Abibu Mbàkke ak sëñ Blaat bu dee sëñ sëñ Abibu bàjjanam ñoom ñëpp ñu jox la cër bàjjan bi waaye nga jaayaat lépp jënd ko ak taalibe ànd ak ñoom ci ngor ak positif ak liggéey kon yow it waa Touba ñu lay sant di la gërëm Ibrahima Sarr waatu Touba ka kanam gépp sant nañ leen gërëm leen wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf euh, jërëjëf soxna Ibrahima euh, xam naa rek euh, ci li nga xam ne moom la sa mbokk mi jeexale yéen yéen a nekk fii ci Nouakchott waaye dafa mel ne liggéey bi am na lu ñu lancé fii ci Nouakchott muy liggéey boo xam ne liggéey bu Sëñ Touba ndax Touba ca kanam da ci ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci mu mooy përë ca bërëb salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi nayu waa Touba ca kanam yëpp waaye di fa nuyu waa Mauritanie yëpp di ko jox Serigne Habib Mbacké euh, di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tubéral ko waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu Touba ca kanam yëpp waaye di sant tam soxna si nga xam ne moom lañ fi muy soxna Bintu mbakke waaye ñu ngi sant tam mboolem ñi nga xam ne ñooy Touba ca kanam yëpp yëpp yëpp rawatina soxna yi ndax Touba ci kanam Sarsara ji bésu jigéen ñi la soxna si ñu ngi koy sant ci turu waa Murtani yëpp ñu ngi koy sant di sant tam mboolem ñi nga xam ne ñoom àndal liggéey Touba ci kanam di sant waa Murtani yëpp ndax jox nañ Touba ci kanam liggéey boo xam ne euh, kenn mënu leen ci guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey waaye kenn mënu leen ci versement yi kon ñu ngi sant waa Murtani soxna si dañ koy yëkk sant goo xam ne soxna benn caw lañ koy bàyyil mi ngi yore jigéen ñi kenn mënu ko fay ndax fi mu toll ci at ak ni mu wàccee boppam ñëw ànd ak ñun yàlla ak yonent bi Sëñ Touba dong na ci barab a dem yëpp yoo xam ne nii moom jàppoon na ne euh, xaj na euh, dooleem sax may woon ko mu dem fa waaye alhamdulilah rabbi yàlla dimbali na ko ba def na siyaar bi mu war def yëpp ànd nañu bés bi itam ba mu jeex ni jàmm ñu ngi sant bu baax li nga wax nag muy liggéey Touba kanam ñun danoo doon ay coordinateur rek lépp lu ñuy def ci ndigal lañ koy def euh, ata Touba ci kanam na muy doxee xam ngeen ko waaye nag Touba ci kanam murit gépp ñoo ko moom ñun fu dool nii la ñuy def ci Sarsara kenn mënuñu ji li ñuy def ci kër sëñ Touba yi kenn mënuñu ci li ñuy def ci daayira yi kenn mënuñu ci loolu nag suñu yëf bopp la waaye jëmmi Touba ci kanam nag ne dañuy def nangam ah loolu moom buñ ci duggee day fekk boog ñu ci am ndigal waaye lu ñu am ndigal daan ko def incha allah rabbi ndigal li nag mu ngi avancé bu baax alhamdulilah ñu ngi sant sëñ Abdou Fatah Gueye mi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom bokk liggéey bi xam naa heure bi dafa gaaw te xam na ne barab bi dafa am nu mu euh, gouvernement yi ko yor heure lañ yor lool moo tax waaye kon daañu ci gën a tënk lu bari lu gën a yaatu ñu ngi leen di sant yéen tamit ndax partenaire Touba ci kanam wane ngeen ko alhamdulilah rabbil alamin jërë ngeen jëf xam naa rek ci dalal bi nga dalal soxna si ak délégation bi jóge Touba waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ni waa Touba ci kanam ñëpp ma kenn sant soxna Bintu bu baax a baax nag ci dal gi macha allah bañ ko ko waxee bés bi dafa jóge Touba ñëw ba fii kon loolu rek doy na sant di sant ñi mu àndal ñëpp nag ñoom seen ñëpp rek dañuy gàttal ndax heure bi ak jaayante liggéey bi nag nit ñi gën a góorgóorlu ci liggéey bi rek gën koo fonkaat bu baax a baax wasalaam. ndax yomb na ci yéen. waa liggéey bi xaw naa jafe nag waaye ñoo ngi sant yàlla ndax bokk taalibe yaa ngi koy jaayante bu baax a baax waaw. déedéet wax dëgg fa yàlla amuñu ci heure ñu moom liggéey sëñ Tuubaa bi heure bu ñu ci woo rek ñu jóg ci wax dëgg fa yàlla. soxna yi moom ñu ngi ci jàpp ñoom it ku ci mel ni soxna Paya soxna Ndeye mu sëñ Saliou wax dëgg fa yàlla jàpp ci liggéey bi bu baax ñoom moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi góor góorlu bu wéer a wéer ci liggéey bi di sant soxna Bintu nag bu wéer a wéer Mbàkke Bàll di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wéer ñun moom suñu fierté la ci Touba ca kanam amuñu ku dul moom Mbàkke kon nag mbokk yi liggéey baa ngi nii 1000 francs rek murit bu nekk weer bu nekk kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf waa Touba ca kanam section Mauritanie dalal section Touba dalal diaspora bi dig daje ci yeneen jotaay fii ci Nouakchott jërë ngeen jëf